président de la république ri président ci côté no be ko la barak sande ko résidence zoro reflex zoro victoire ko président de la république ba la république résidence du président de la république nga xam moo demal structure à la quartier Dakar plateau capitale du Sénégal construit en 1902 so ne pale ba xaw daa yàgg de la la mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AF les porcelaines Senghor Diar 1964 Abdou Diouf 89 Abdoulaye 2010 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñamaat nu xaaran ba xam kii woote ba ko jot président de la république ko ko la war a fa lay wote salaamaaleykum allo Moustapha Ox démb fi nga fàtte sa kii de lan fi nga ko fàtte bi nga maase yow ba pare. Moustapha. oh ma ne jox la si xoolal fi nga woote. ah. allo waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam Sow. waaw. Ah, ca dëgg-dëgg est-ce que mën naa la wax ñaar dëgg. kooka la. Alaaja Mansour Aj Mansour président communicateur. ah eh, Aj Mansour mbay mbay dëgg dëgg Sow Sow waaw avant may egg si boobu. <laughs> Ah, dama la bëggoon wax yow est-ce que doo dem Sorano. doo dem fan. Sorano pour lan. wala ca dëgg-dëgg nga dem centre culturel Blaise Senghor. pour ca dëgg-dëgg nga dem arco bu Pikine. non ndax ca dëgg-dëgg di ngay wooyee téléphone dafa méngawul dëgg di wax ba mu yàgg nga xaaxataay fëgg table bi. waaw ci dëgg-dëgg loolu dafa am. benn respect ci dëgg-dëgg dégg nga may déglu doom. Eh, papa ji nga baal ma rek doom dafa déglu loolu dafa amul benn respect. ndax ca dëgg-dëgg en 1945 fi la ma fekk. ba déglu di ñëw Sénégal fi ma fekk. standard yi ma sa jaar bi yëpp doxee wuñ nii. kon ci dëgg-dëgg da ngay am éthique ak déontologie palais bi waaw man euh, papa ji waaw li may sa woote li waral sama woote mooy mu daan ko xam da ngay ànd ak ak tey ak dal ayca ci dëgg-dëgg neel gardien de la constitution lépp lu mu déglu rek ci dëgg-dëgg dan ko war a doxal rawatina communicateur traditionnel du Sénégal waaw waaw maa ngi déglu ci benn rajo benn waaye naan ci dëgg-dëgg Aji Mansour Mbaye bu ñaxuwul du ma kon na waajal te xam ne na ñaxu ndax man ñaxu yow ñaxu nga dégg naa ñaxu naa démb <laughs> asmaasur gars yi bari nag ñu ngi naan asmaasur mu tëb tëb la jot lan wala jot lan doon ca dëgg-dëgg xam naa ne enveloppe dara dara lu xam xam naa ne enveloppe yi bu doon jóge ci sa poos ci dëgg-dëgg ñu duñ laal dara ah. duñ laal dara ndax boo koy wax sax dafa mel da nga am ak coxor ak iñaan gooy boole ci sa a xol. ah déedéet ak iñaan mooy. waaye nag ci digg yow yow yow taxaw taxaw may woote taxaw may woote. Ah, kon a sa woote. léegi di wax Sénégal. waaw rawatina communicateur traditionnel comme Abba Mbaye Pekh. Hmm. Lamine Ngom Bambi Loor. Hmm. Alaaji Sall Biige. Hmm. ak ñeneen ñeneen ñoo xamante ni ñëpp ci digg Abdou Aziz Mame Fama. ak Omar Mbaye Garmi. Xaadim Samb. ci digg-digg ñoom ñëpp nañ def geste patriote. di ñu vacciné wu. ñu dem vacciné wu. ñu dem vacciné wu ndax ci digg-digg gis nañ. ñoom ñi nga xam te ne ay seen baay léegi ñoom bu ñu vacciné wu ba pare après ñu ñëw gis la. waaw bu ñu ñëwee gis ma. ci dëgg-dëgg loolu dana ci gën alaa daw me hmm. waaw ci lan lañ ma war a gisee noonu sax daan dara damay laaj la pour pour kay xanaa nga compal <laughs> ci ah, cof bi nga cofal leen monsieur Sow <laughs> ah waaw votre correspondant ne peut être jouer pour le moment maa ah, lay coupé maa lay coupé ah, maa la daan coupé ah waaw <laughs> man jo mënoo sant mu ne wele fi la toj